Fatou ma Samb moo di euh, waxambaane booba Fatou fële kon ca Mbàkke ca loxoy police apprenti chauffeur la woon euh, moom nag ki ni moo di jëwrin ji ñu dénk biir réew mi réagir na gannaaw euh, la nga xamante ni xew na ci mbiram xam leneen ne nag moom Abdoulaye Daouda jàlloo dina leer kon nee na bu ñu defee pa l'enquête ba yëfi firndeel ni tuuma yi ñu la takk der yi dëgg la bu boobaa ay daan du ca mën a ñàkk ñu teewlu ko ci micro Chérif Dia caméra चलो C'est un, c'est un événement malheureux nous le déplorons franchement parce que mbir mi nag na loo xam ne naqarlu ko ba fu mu mën a ndax ndaxte doomu aadama rawatina bu Sénégal bu ñàkkee bakkanam ci anam yoo xam ne leerul loolu kenn mënu ko rafetlu fi mu toll nag ñu ngi ci def enquête bi nga xam ne moo ci war te bu fekkee ne nag am na ay daan yuñ ci war a jël mu méngoo ak yoon na ñëpp dal te xam ne daan yooyee dinañ ko ci jël ba mu mat imposé à nous de toute façon les conséquences de droit en seront tirées.